وجليلاي مسكني طوبابات مثل اسمها بجاي خير ما نبات salaamaaleykum mbokki julliti mbokki taalibe yi mbokki Touba Argentine ak li ko wër yéen a ngi jàkkaarlook seen télévision Touba Argentine TV gannaaw loolu ñuy sant yàlla di julli ci yonent bi di sant Cheikhul Khadim yaakaari jaam ñi di ñaan Serigne Mountakha moom Serigne Bassirou Mbacke suñu borom yàggal ko fi lool te mu ànd ak ak naka noonu Serigne Cheikh Jëmb Fall di ñaan Serigne Sidi Muxtaar Mbàkke suñu borom yokki te taaf ñu ci barkeem di ñaan suñu boroom weer wu sell wi nga xam ne moom lañu dugg muy weeru koor di ñaan ñu dugg si ci bisimilah rahmaani rahim tey génn si ci alhamdulilah rabil alamin te lépp lu ñu fi jaamu rek suñu borom nangul ñu ko ak képp ko xamante ne ni jullit nga rawatina njabootuk seexul xaddim bu ngeen gisee toogaay bii muy lu am solo ñu war ko waxtaane tey ki ñu toggal mooy sëriñ moo du Seck di yëngu ci lu jëm ca tuubaa ca kanam di génn di dem ci àdduna bi tey nag sama borom dogal mu ñëw fii ci Argentine lu ñu def lu dul jébbal ko kàddu yi mu nuyoo ak mbooloom mi Serigne Modou ñoo ngi lay jaar. salaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu waa Argentine gépp ñu ngi leen di nuyu gannaaw bu ñu nuyoo. Cheikh Mountakha Mbacké tey ñaan yàlla yàggal ko fi lool ba mébét yi mébét yéene koo liggéeyal Serigne Touba mu def yépp ba def ca lu kawe njortam ci ñànd koog moom ci barkeb Serigne Touba di nuyu euh, sëñ Babacar ak yow mii nga xam ne yéen fi ñëwoon tey mhm. ñu ngi leen di nuyu bu baax a baax te di sant di leen gërëm ndax gis nañ yitte ji ngeen ci am. ak euh, bëgg gi ngeen ci am di nuyu sëriñ Yankooba bi nga xamante ne ni moo jiite murid yi nekk ci Touba ci kanam yëpp murid yi nekk ci ci Touba Argentine yëpp euh, ñu ngi koy nuyu bu baax te di ko sant te di ko gërëm di nuyu ñi nga xam ne ñoo topp ci moom ni ki ki nga xamante ni moo jiite liggéeyu Touba ci kanam muy sëriñ Pape euh, Soda sëy ñu ngi koy nuyu bu baax mu joxal ñu nag nuyoo bi ñeneen ñi ci des ndax eh, nekk fi di lim ñëpp day jafe waaye nag du tey ñu ñu sëriñ sëriñ eh, Abibu Mbàkke ibnu sëriñ Fàllu mi nga xam ne moo jiite liggéey bii tax nga ñëw fi tey muy liggéey Touba ci kanam mooy njiit li moo indi it xalaatu ñaar téeméeri di nuyu sëriñ Abdul Ahad Abibu mi nga xam ne moo topp ci gannaawam ci wàllu liggéey bi nga xam ne ñun ñëpp mu doon suñu kilifa encore di nuyu nag ki nga xam ne mooy président Fallou Ndiaye mi nga xam ne mooy président liggéey bi tur wii di Touba ca kanam tamit ci moom la bàyyi ko ci xalaatam. jërëjëf sëriñ Modou Seck ci nuyoo bu am solo boobu nga xam ne nuyoo nga ko mbokkee taalibe yi kon du ñu def rek lu dul commencé li nga xam ne moom mooy waxtaan wi ak yow muy Touba ca kanam xëy na wax nga ko léegi waaye du ñàkkit nga jaaraat ci maanaam ci kan la bàyyeekoo. ba tax it eh, ngay ñëw di génn bitim réew eh, ngir luy doxal Touba ca kanam maanaam idée boobu ci kan la njëkk a bàyyeekoo. waaw ah, ni ñu ko waxee léegi moom rek lay répété waat mooy Touba ci kanam ak groupe la woon. Mm-hmm. groupe boo xam ne dañoo dajaloo woon ñun waa Touba ñenn ci di ca waxtaan luñ gis ci dëkk bi loo xamante ni rafetlu wuñ ko ay nit di ko def wala wala loo xamante ni ak fu mën a bawoo rek. ca rafetlu wuñ ko ñu toog di ko waxtaane loolu moo doonoon tàmbali ba bañ doxee tuuti nag fa am ndox ñëw fa moo xam ne ni yàq ndaamaatu ba nangu fa jumaa joo xam ne sëñ Saaliwu ko tabaxoon mu àgg ci 60 millions ñu jóg dugg fa nag ne ak jaa jot na nag pour ñu jóg sol suñu daal nag yéem dara ndax waxee kese tamit jëriñu te it euh, yóbbantab galgal wul lam coocu ci lañ jógee dem foofa nekk fa di ca kër kër yi ba sëriñ Serigne euh, Serigne Modou Kara Mbacké yebal fa ay nit ñu toll ci 313 ñu ñëw fa jàpp lañu ca liggéey ba ba jëlee fa ndox ma ñu jógaat ñun suñ bopp dajal nag ab xaalis ba yóbbu fa ay sànke yóbbu fa ab ceeb kër gu nekk ñu dugal fa ceeb yóbbu fa sànke yóbbu fa suukar ca loola la Touba ca kanam jóge ñu dekk ci loo nag jóg wax nag jot na ci biir loolu nag sëñ bu mbakkee moom sëñ Fallou dégg ko daan ñu daan ñuy invité këram ñu dem fa mu ne moom bokk na ci waaye nag am naa xalaat boo xam ne xalaatoon naa ko bu yàgg te aw fu ma ko waxee te am naa ci seen mbooloo ñu yaakaar ma bëgg leen ko wax ñu ne ko loolu lan la mu ne ñuy laaj taalibe Serigne Touba yi mat nañ ñaari million lu gàtt gàtt te ñaari million yooyu buñ dajale woon kenn ku ne di joxe 1000 francs par mois suñ ci amee ñaari million dana ci am 2 milliards par mois doon 24 milliards par an loolu nag bu boobaa la ñu Serigne Touba jàngaloon mooy ba muy laaj jumaa ji ba ñaar fukk ak juróom-ñett la doon laaj ci jumaa ji ñaar fukk yooyu juróom-ñett nag lam taxoon mu doon ko laaj dañu woon na ngeen fexee mënal seen bopp ndax ku la mënal sañal te mënatu suñ yi bëgguma kenn sañal ne kon jàngal nanu nan la ñu yore suñ bopp yor sa bopp nag mooy jéem a defal sa bopp bu boobaa da am indépendance ndax indépendance nga xam ne moom la wax dëgg-dëgg du indépendance indépendance bi am solo mooy fexe ba laajoo kenn dara li nga man lépp nga mënal ko sa loolu mooy indépendance loolu nag la ñu Sëriñ jàngal ñu dugg ca bañ ko defee nag dem nañ ca ca sëñ si Sidi Muxtaar Mbakke yàlla na yàlla yokk ay leeram ñu laaj ko ndigal euh, ca xare ko àjjana yëgale kawe te taas ñu ci barkeem mu jox ñu ca ndigal ñu dox ca di ca dox daal di dem ca sëñ Muntaxaa bañ àggee sëñ Muntaxaa wax ko ko sëñ Muntaxaa daf caa kontaan lool daal ne loolu day lu yomb lay doon te lu manu lay doon te it kenn ku ne mën nga ko booleeg la nga weroon te du yàq ci li dara loola moo sabab ñu continuer ca loola kon topp nag kilifa yi sëñ Basiru Baara dem nañ ci mu doon ku jàmbaari ci liggéey bi yàlla na yàlla yokk leeram ca taas ñu ci barkeem moom it at mu weer wu jot joxe na ci deux cent mille wala lu ko ëpp sëñ Muntaxa jën dagg fukki russi ak benn fukki ñaar fukki benn bi man la juróom-ñeent yi taalibu bu yéene liggéeyal Sëriñ Tuubaa ci mënalul boppam dara laa ko defal kon loola ba yàlla dogal nag yëf yi agsi ci moom moom sëñ Muntaxa mu bërki démb la def nam defoon foofu nag bala ma fee sori dinaa am tuuti lu ma fi leeral seex bi mooy Sëriñ Tuubaa bi mu sàkkee Tuubaa dafa dama yaakaar ne moonu moo moom Tuubaa mm-hmm. Tuubaa nag ab dëkk la mm-hmm. Tuubaa du Tuubaa du dëkk ab ab kër la kër nag képp koo xamante ni nii da nga faa nekk sakkin woo fa taxawal borom kër ga moo la amee jërëjëf moom nga ko defal waaye koo fa jox mu lekkit boroom kër ga nga ko defal dépense boo fa joxe boroom kër nga ko defal léegi nag Touba ca kanam bi mu jógee ngir bëgg non seul non seulement Touba jëm ca kanam waaye nag bu jëm ca kanam yam Sénégal mais jëm ca kanam féete kanam adduna bépp léegi nag bi nga xamee ne woote nañ Touba ci kanam kon loolu la Touba ci kanam di firnde waaye nag taalibe yi ñoo ko war a yóbbu ci kanam ndax koo xamante ni boo juddoo Touba nga bëgg a dëkk boo fa dëkkul bëgg nga fa am kër booy man fa ngay bëgg fa ngay dem saa boo faatoo foofu nga bëgg a dem kon jëmale ko sa kanam jëmale ko kanam sa ndam la te nag dafa mel ni boo ko jëmalee kanam ba pare dafa am ak pay goo cee jële ndax bi nga xamee ne def nañ ko ba noppi Serigne Touba daf ñu indilaat ndax dañoo dem ci Seex Bass Abdou Khadre di ko wax mu ne man de seen liggéey bi kontaan naa ci kontaan te loo xam ne nii bëgg ci bëgg yoo xam ne nii yaakaar naa ne Touba ca kanam ji wuru leen ci yam ci nooru daara yi nooru daara ak àllaaxira kon ca kanam boo jógee ngir jëmee ko ca kanam ba mu àgg fa mu jëm yow lan mooy sa pay nooru daara kon bu boobaa nag kon day jot bu boobaa kon day jot ñun taalibe yi ak fu taalibe nekk nga jóg a takk sa tubay takk sa sa kumba boo dee jigéen a takk sa kumba xam ne jumaay Tuubaa bi ñu koy tabax jigéen góor ñi mënuñu fa woon jigéen ñi bokk nañ ca ña ci yanum ndox ji góor ñi bokk nañ ca lañ mënoon la ña fa mënoon ci indi kayaar ba àgg nañ ci sëñ Fallou ne leen ba ba ah, liñ leen di fayee mooy lu jigéen lu jox leen seen jàmbaar ji ngeen li ngeen jàmbaree ci jumaay Touba ji dañ leen ñaanal lu góor mën a jóoti jox leen moo xew Touba jigéen ñaa nga tëdd ña def lañ bëgg a def fu fi góor bu noppee andil ko ko kon jigéen yi adduna bi ñu ngi leen di soññi di leen ñaax ci Touba ca kanam nga xam ne ni buñ ko yóbboo ca kanam suñu pay mooy nooru daare ni taxit adduna ak ñu jógaat fas yéene liggéeyal Serigne Touba xam ne loolu mooy mbir mi mbir nag bu fekkee ne Serigne Touba daf koo sàkk ca ca ndax Serigne Touba dafa wax ne képp koo xamante ne nii lépp loo xam ne ñaan na ko ci Touba ndax Serigne Touba dafa am benn kayit boo xam ne ab ab lettre la mu bind ko def Touba lam bëgg ci Touba lépp fekke naa ci Touba nit ñëw ne Serigne Abdoulaye ci sama kanam damaa bëgg dañoo bëgg àggale liggéey Touba jumaa ji Serigne Abdoulaye ne ko loolu de baax na lool waaye nag yii yi ciy jóge dama ko yéene teelu bi Serigne Touba ci mën nañ ko kon seetal leneen loo def te lii moom nga bàyyeeku taal bi kon ndekete Touba moom këyit woowee nga xam ne Serigne Touba moo ko bindoon mu dugg lettre ñu tuddee lettre ba mat la bul faw sëy ne Serigne Touba bëgg lépp ma nga ci man nii ci bi may xale bu ndaw daanaa dégg ay mag naan Touba day day am dex ndekete booba mu dex am na fii ci gannaaw ko sëñ Murtala ay ay kàmb yu fa nekkoon am na sox ñu àggoon ci naan xay na foofu mooy doon dex gi wër jumaa ji loolu lañ gëmoon xam nga lu ko waroon uh-huh. wa maskani sëlni min al fujaari wa nun ala ahli bi maahin jaari sëñ Tuubaa moo ko wax ndax maa ngi daw ci si ca boobu xamuñu ne rëbi la xamuñu tiwo xamu booba tiwo ba ko sëñ Tuubaa wax tiwo amul rëbi la amul mi daw ñu ci xam muy géej wala dex loolaa taxoon ndekete loola mooy lii ndimbal Sëriñ Tuubaa nag toujours ci loolu lay dox nga xam ne ni jamono bu nekk day wax loo xamante ni nii aggul ci boppi nit moo tax jamono yi dañuy tere sax ku génne am na yooyu dañuy tere ku ko génne ndax nit mënu koo dégg gëm ko nit mënu mënta dugg ci xel mi keroog ba ngay jógee Touba jógee Kajoor dem a jël Louga tanaan li am fii dana am fa Touba waaye day fekk ngeen làqu boobaa boobu da ko Sëriñ Tuubaa di wax booba ndax xalaatoon nañ Touba am mel nii mu mel déedéet léegi langa xamante ni nee na woon it danañ dox ba jamono la ñuy wuti ndar ñu koy wut si Touba booba ndax nit mën na koo dee déedéet loola nag mooy liggéeyub Serigne Touba Serigne Touba daal dafa am ak gaal goo xam ni ay sor la fa def jamono ju jóg dañuy yëkkati benn sor tàllal ko mu tolloog la la ñu tollool ci yooyu jamono bindee ba ñu ne weesu foofa ñu demaat ca gaal gi génnewaat beneen sor mën nag dañoo gëm sor yi nga xamante ni mooy sori seen Tuubaa yi mooy yii nga Tuubaa ca kanam da caa doon wenn sor ñu génn ko war koo tàllal adduna bépp bokk ko ñu lëggéeyal Sëriñ Tuubaa ngir Tuubaa jëm ca kanam ndax kat buñ ko defee bu Tuubaa jëmee ca kanam lañ cay amee mooy nooru daayee ni tefek ñaari kër jërëjëf moo Modou Seck kon mbokk yi nga xam ne yéen a ngi seetaan seen télévision Touba Argentine TV bu ngeen déggee kàddu yu mu yëkkati rek muy kàddu yu njëriñ loo xam ne kenn ku nekk fa ngay dugal sa dërëm di ko yëkkati di ko joxe war nañ laa wax ne fii lañ la koy dencal kon ki nga xamante ne ni mooy jël si addiya ji jëm ci Touba ca kanam dégg ngeen leeral yu am solo yi nga xam ne yëkkati na ko ci Touba Argentine TV Serigne Modou sekk beneen laaj bi mooy li ñaata mooy seen budget depuis bi ngeen taxawalee Touba ca kanam ak léegi ak lan ngeen defagum loo xam ne mën nga koo taxaw ci kanam mbooloo mi ne lii ak lii. waaw Euh, bi nga xamee ne tàmm dem nañ ba commencé dajale lu war a àgg ci lu war a toll ci cent quelques millions dañ ne dañoo demaat laaj ndigal ci sëñ Sidi Moxtaar ñu dendale yi nga xamante ni moo jaadu ñu ne nag nit ki balaa mën a jaamu yàlla daal nit ki balaa mën a jaamu yàlla daa daa balaa mën mën a liggéey daa wér kon li ñuy tàmbalee mooy nañ jëm ci am paj paj moomee ñu dem ca seet ci ñeenti dëkk ñeenti ñeenti xibla yi nga xam ne ñoo wër Touba ci ay sancaan nekk ñu ne nañ tàmbalee foofa que xibla bu ne ñu def fa ak post santé ñu tàmbalee ko ci bëri bi njëkk teg xeer wa mu Muntaxa moo ko tegoon ñu ngi ko yóbbu woon ci Touba Lamsaar Touba Lamsaar googee fi mu ne nii may waxe yow tollul sori na lool ndax kuule nañ ba pare ñu nga ca léegi mu àgg bërki démb bu teg nañ weneen xeer woo xam ne ñu ngi ko teg dëkk bu ñuy wax Kër Gol am na dëkk bu ñuy am na quartier bu ñuy wax euh, quartier Maam Cheikh Fall ci Touba dëkk nañ fa fukki at ak juróom ndox amu fa yóbbu nañ fa barki démb ndox lu war a toll ci trois millions cinq cent ba ndox maa ngay xelli heure bii daaw amoon na benn kii bu defoon muy dajaloo dimbale ay nit ci mbaarum Daaru Xudoos mi defoon nañ ko yóbbu dimbale fa ay nit ci koor gi lu war a toll ci ñetti lu war a téeméeri nit ak nangam jox leen ay kër jox leen ay ceeb dimbale leen daal ca nañ ko mën ren jii ñu ngi koy defaat àgg nañ ci ren 313 personnes yoo xam ne dañ leen dimbale jox leen ak ay dimbale leen ci koor gi ay boroomi kër yoo xamante ni ca sancaan ya nag la ñuy dëkk ñooñu ñu ngi leen di dimbale fi ne nii foofu lañ toll ak ñoom bu ñaata lañ amagul. Mhm. am nañ lu toll ci 400 millions fi mu ne nii ci banque bi. 400 millions waaw ci banque bi. li nga xam ne nag donte agguñ fa ndax dañoo wax ne dañoo soxla deux milliards par an kon taalibe yi ñëw ak waaye liggéey bi moom ñu ngi ci ñu bëgg nag taalibe yi ñëw. bi waaw euh, dëgg la information bi am na ci loolu xay na aggagul. waaye nag am na ci loo xamante ni dafa bari yu fi jaar te yu fi jaar yëpp. lenn lu ci nekk am lu ca xew dëgg la yenn yaa ngi dox ba léegi dëgg waaye nag daal am bari xay na am na ñoo xam ne nii dafa teey ndax dëkk bii may wax dëkk bii may nekk muy Argentine boo fi ñëw daaw woote nañ fi yónnee fi ay ndaw ca taxul liggéey bi agsi bi ma agsee toog ak si yàmpo yànqoo ba la ma daan ne yow day lii nga ma wax doy na ma te it waaye nag mbooloo bu fekkee da ngaa nekk ci seen kanam mhm. bala ngaa dugg ci mbir da seet loola ba mu tege ci yoon te bi nu woon kenn koo xamante ni mën naa mën naa wax ñu déglu ko dégg ko loolu doy lu tax ñu wax mbo woo mbooloo léegi nag lii doy nañu kon mun dinañ woo suñu mbooloo dugal ko ci biir loolee nag moom la ñëpp soxla ndax gis nga liggéeyal Sëñ Tuubaa kenn bañu ko mm-hmm. te man damaa gëm ne su ma ñëwoon ba ci sa néeg ne la ñooy bokk ci liggéeyal Sëñ Tuubaa nga gàntal man nii maa am toor mais yow amoo toor ndax xam nga lu tax amoo mais nit ku nekk dafa am lu muy jaar boo ko jëndee rek moom ko kon xëy na man bi may ñëwee sama comportement bi ma accès di wax ak yow benn man na laa mën na laa mën naa tax nga bañ a dugg na ma la ko waxee mën naa tax mu bañ a dugg yooyu yëpp nag su ma gëmee ne man ci man la ne kon bu ma accès ci yow yow mi ma lay duggal te duggoo du la mere damay xam ne man maa ko waxul na ma ko war a waxee message bi dafa accès gu ci yow ndax dégg nga wax taxul nga message bi àgg message balaa àgg ci bu ma waxee bu ma noppee ci sa xol lay lay dellu. ndax bu ma wax bu jógee ci xol ci xol lay dugg waaye nag nan ngay waxee say wax ba mu jógee ci sa xol dugg ci nit dafa am aw yoon yoon woowu nag dafa am lu bëree bëri loo xam ne ñun ñii nga xam ne ñooy dox sama classe nga xam ne nii kër kër rek lañ maanaam yéene rek lañ koy waaye dugg ci xam-xam mënuñu xamuñu ñooña dañ dul mën a yóbbaale dañ dul mën a joxe information te nañ ko war a joxe loolu laa yaakaar ne moo téye taaliba yi waaye liggéeyal Sëriñ Tuubaa moom kenn bañu ko te rawatina nag liggéeyal Sëriñ Tuubaa ci Tuubaa waaw tey li nga xam ne mooy yoonu murit lu ci mel ni Muxaddamatul Xidma mhm. ak Touba ca kanam bëri na ay kër yoo xam ne ñi ngi koy créer ah, ndax ñooñu ñëpp benn bopp la wala ku ci nekk daa am yoon way aw waaw xam nga liggéey sëñ Touba dafa yaatu mhm. ndax euh, Muxaddamatul Xidma googu ngay wax ci jumaa ji li ñuy liggéey te Touba ca kanam ba mu tàmbalee ba bisu tey bi weer wu ñaar fukki nit ak juróom-ñett ñi nga xamante Sëñ Tuubaa leen tànnaloon boppam ñuy wàcc juróomi kaamil par jour ci jumaay Tuubaa mhm. Tuubaa ci kanam a leen di jox weer wu dee saako ceeb dolli na ca ñaari ilimaan ak noddkat ba mu àgg ci trente yaakaar naa wala trente yoo xam ne waa Tuubaa ci kanam ñu ngi leen di jox ay ndimbal gis nga Tuubaa ci kanam gii su doxee ci nan lañ ko bëgg dañoo bëgg dañuy dem ba waa xidma dootuñu ñëw fii waa Touba ci kanam ñoo leen di jox liñ soxla gis na li tu li li nga xamante ni bëgg nañ ko buñ ko amee bari na yoo xamante ni ma ngay dox ca Touba yoo xamante ni dañ koy dugal ci Touba ci kanam ndax na dañuy liggéeyal Serigne Touba ci jumaa ji ca amuñu luñ leen di joxuñu leen dara kenn joxu leen dara waa waa waa waa kaamil ma lay wax bu fi Serigne Touba nekkoon moo leen di yor donte ka fi nekk di Serigne Touba ma nga ca di ca def lam waaye nag teewul. lu war sëñ Tuubaa rek ñun taalibe bi dañoo war a jàpp ne dañ caa war a jóg jëm ci dox ca lañ ca war a def defal leen lañ war a lañ war a am ndax ñun jàmm ji am ci adduna bi juróomi kaamil yi ñuy def ci njaareem di ko def ca Touba moo na ko may te buñ ko xamee rek dañ jóg ngir jàppale leen ñoom it lañ lañ war a leen waar te mënaluñ ko seen bopp ndax foofee ñu toog bis bu set ñu war faa ndax juróomi kaamil ci juróomi waxtu nga di fa dëggale boo ne la ku ne la mën ngaa koo leneen da lay nax mënta nekk lañ leen war ñun ñun la war seen la leen war ci seen kër yi ñun taalibe Sëriñ Tuubaa yi la war kon dañoo war a jóg jàppale leen ca loola xidma ak keneen ak leneen ak leneen lu bëree bëri ba ca ña nga xamante ni mooy li sëriñ mu gaabu jiite muy safinatu amaan ak la sëriñ Seex Aliou jiite loolu lépp bu maaw rahmati bu ñu jëleen bu ñu amoon li bëgg dañ koy boole wenn say def ko ci Touba Ca Kanam ndax mën na ko ndax dañoo wax ne ñaar fukki milliards ñaari milliards par mois ñaari milliards par mois defar na courant defar na lu bëgg ci Touba dara ca dañuy am indépendance kon nag Touba ci kanam a ngi daal ci bu fekkee tontu naa sa laaj boobu lii mooy Touba ci kanam Argentine yii maa ngi dégg woot woo ci ay kilifa bañ xamal ma daayira Serigne Touba daayira Maam Jaara bi fi ne mhm. soxla naa leen soxna Sophie Thiam soxna Sophie Thiam maa ngi lay woo ci Touba ca kanam yaag jigéen ñi nga àndal ngeen ñëw jàpp ci Touba ca kanam te kenn bañ leen caa man ngeen lig yor liggéey bi dinaa yokk jokkoog yow sax ci lu gën ngeen ngeen jël liggéey bi ci loxo ndaxte kat jigéeni jigéeni Serigne Touba yii fu liggéey Serigne Touba àgg kenn mësu leen ci aman kon na yéen waa Argentine maa ngi leen ciy soññ te xamal leen ne ñëw leen ñu liggéeyal Serigne Touba ndax kat liggéey boo xam ne nii boo ko amee la nga ca bëgg la nga cay la nga cay am mu dik pay muy nuuru daare ni tax ñaari kër yi loola jar naa jóg jërëjëf Serigne Modou kon ñu dellu waat rek ndax sànq dañoo dégg message bu am solo nga jàllale ko muy lu mel ni hôpital ca biir Touba su ma yeboo ne Sénégal gépp ndax xool nañ ne booy dund ci réewu tubaab yi boo demee ba Sénégal lu ci mel ni ay hôpital yi wala dispensaires yeeg yooyu boo fa demee sa yaram sax day daw ndax ñi nga xam ne ñoo war a faj faj man war a faj malaat yi fajowuñ leen ko dañ leen di bàyyi noonu di doxi seeni soxla wala nga gis koo xam ne leer na leen ne mu ngi toll ci sukuraat day waaja faatu say mbokk amuñu moyen ñu dem jënd loola garab gu seer ga nga xam ne laataa ngay dellu si da ngay fekk malaat bi dal di wàcc dañuy jël garab googu jaayaat ko ci seen biir mu mel ni loolu dafa manqué torop boo jógee fii dem ci lu mel ni Sénégal dugg ci hôpital yeeg yooyu sa yaram sax dafay daw ni ñuy def malaat yi fii tubaab yi da ngay gis ku jàpp ab malaat di ko faj ba mel ni da nga koy neexal loolu nag amut ca suñu réew ma ndax am na lu ma fa jot dund xam naa ca lu baree bari loolu nag dafa métti li ñu leen di sàkku mooy hôpital yooyu bu ngeen ko mënoon a yaatal ba mu daj Sénégal gépp wala bu mënta daj Sénégal gépp mu bari fa lool fi ñuy ñëwaatee ci suñu beneen laaj bi rek mooy ndax kër yiñ fi wax yooyu yëpp ndax yéen a ngi jokkook ñoom. waaw jërëjëf ñu ngi jokkook euh, kër yi ndax keroog bi nga xam ne ñu ngi defum ndox foofu ci place Maam Cheikh Rafal muy quartier boobu. ci suñu Cheikh Aliou lañu ndax ñun bu fekkee ne dañuy jóg ngir defar du ñu yàq bu fekkee dañuy jóg ngir boole du tàggal. te mboolem koo xamante ne ni yëkkati na woon ab daayira wala mu yëkkati lu mu mën a doon ci Touba yëkkatiwu ko lenn loolu lëggeel sëñ Touba mm-hmm. bu ñëwee ne fekk leen ci seen biir te Safinatoul Amaan tey jii may wax am na mbooloo mu bari moo xam ne bokk na ci Safinatoul Amaan ba ci seen ba ci ba ci seen seex seen seex seen móoduloo na ci Touba ci kanam gi sëñ Seex Aliou lañ àndal wax ko mu dem mu yebal nitam ñu seet lam war a fay ñu seet bilan ba lépp la koy def ñu fay ko kon li ñu def mooy fas yéenee ànd ak ñun ñëpp kenn ku ne la nga nekk buñ cay dugg maanaam hôpital ba buñ cay dem ca ñi xam ne hôpital la ñuy jaar ndax nit ku nekk boo jógee di dem ci néeg da ngay jaar ci bunt ba loolu kon ñun li ñuy def mooy lépp loo xam ne soxla nañ ko wala lu ñuy dox la dañ jaar ca ka nga xam ne moo ko yore doo ko jàll doog a dugg ci buntu ba doog a dugg ca néeg bi noonu lañ koy def li wax ci hôpital yi Touba lii ngay wax am na lu bari nañ fa seetlu loo xamante ni ñu ngi ciy xalaat te dinañ ko teg ci yoon moo mooy jigéen ñi boo seetloo Touba da ngay am ji day am jigéen ñoo xam ne ni dañuy wéra di àgg ci war a am doom wala yu demee noonu góor di leen seet te xam nga ne loolu jikkul ci Touba te loolu Touba ca kanam ma nga cay dox doxin woo xam ne fas nañ yéene àgg foo xamante ni dañ ko lijjanti ba dañu dem seeti ay jigéen muy faj jigéen ñi góor ñi di seet góor ñi loola def teg nañ ko ci noo xamante ni fas nañ ko yéene lii nga xalaat ni xalaat nañ ko te dañ ko doxal bu sooree yàlla ñu ngi ñaan da taalibe yi ñëw jàpp ci liggéey bi murid yi ñëw jàpp ci liggéey bi ba liggéey bi àgg fa ñu bëgg ndax bu amee lu ñu bëgg dañ ko man ak fu taalibe bi Serigne nekk dañ ko mën a taxaw ndaxte kat Touba ci kanam dafa jóg ngir liggéeyal Serigne Touba sëriñ Touba nag murid yee ko tax a jóg murid yi nag fu murid nekk ak foo ko nekkee ba ci Argentine bi ci Touba la bokk sëriñ Abdoulaye dafa waxoon ne Touba taalib sëriñ Touba mooy ku jébb ku ku nekk ci euh, muridullah mooy taalib sëriñ Touba kan fan la dëkk mooy fu jub taalibe nekk ak foo mën a nekk ca nekk ci li sëñ bi nekk bëgg yaa ngi ci Touba kon Touba ca kanam mi ngi noonu fu waaye nekk ca nekk fa doon fa doon Touba doon doonub taalibe Touba ca kanam ànd na ak yow te fas nañ yéene bu amee loo soxla ñun ñu ngi ci suñu gannaaw te fas nañ yéene jàppale ca loolu. yow yaa toog nga xam ne moo jiite diaspora bi ngay ñëw ci diaspora bu fekkoon te yaa ñuy natal ñoom ci kanam seen liggéey ak naka lañ ca bu fekkee sax dañuy jox yan parti ñoo gën a dox ci Touba ci kanam loolu tey bu fekkoon yaa ñu koy natal luñ ci mën a déggee. waaw euh, fàttali nga ma ci laaj boobu maa ngi nuyu bu baax baax ndax sëñ Abdou Bousso mi nga xam ne nii mooy sama njiit mooy sama jëwriñ ndax Touba ca kanam nooru daari ni euh, diaspora Serigne Abou Bousso moo ko jiite man mii maa topp ci gannaawam kon maa ngi koy nuyu bu baax a baax de passage di ko sant te di ko gërëm te di ko ñaanal yàlla koor gi jàll ci jàmm Touba ca kanam euh, lu mu laaj bés waaw diaspora bi ñu ci man bu fekkoon dañuy laaj dañuy seet dañuy seet Touba ci kanam ñan ñoo man ci Touba ci kanam fi mu ne nii Sénégal Touba moo man ci Touba ci kanam waaw ah, maa ngi ñëw Touba moo man ci Touba ci kanam Touba ci man lay génn ndax am nañ fa gaynde yoo xam ne te gaynde yooya keneen jiite mooy soxna Bintu Mbacke moom sëñ Abibu Mbacke mu mag imam kooku moo ko jiite mu ñoo ak ak ji ak yeneen soxna yoo xam ne nii ay gaynde yu Touba ci kanam la ñooñu ñoo man ci Touba ci kanam bu loola jàllee ñu jàll Italie moo ci ëpp gun lu mu dugal bu jàllee nag yeneen dëkk yi doog a ñëw xam naa dana jafe ci man ndax chiffre bi yoruma ko fi mu nii waaye daal kenn ku nekk yaa ngay góorgóorlu réew mu bi ci réew mi ñu góor góorgóorlu ci weer wu dee lu am ñu yónnee ko Sénégal loola itam ah, dinaa ci leeral tuuti ndax mbir la ci moo xamante ni mat a leeral ndax taalibe yi seen xaalis fu ñuy dugg dañ ko war a leer mm-hmm. Touba ci kanam ñu ko dafa dox doxin yoo xam ne nii weer wu dee ka nga xamante ni moo yore finance maa ngi koy ñaanal yàlla am ngëyeen la suñu Abdou Fatah Guèye xam naa koor gi moom dana yeex affaire yi dana yeex dégg nga weer wu dee dana ñëw ne dëkk sàngam nangam jóge na fa kër sàngam nangam jóge na fa bas adduna bépp daj képp koo xamante ni nii tudd ñu la nga na nga na nga annoncé sa tur xamal ne xam la ne tudd ñu la pour xaalis bi ca loolu ay audio lañ koy def tasaare ko ci fépp fu Touba ca kanam am dañ fa yóbbu liste ba xamal leen dëkk bu nee la fa jóge loolu lañ ci jublu mooy ak leeral 60 million am na yoo xam ne nii ci Orange Money la dugg yoo xam ne xamuñu ñu ko dugal ñu ko ëpp lu ëpp 60 millions ci compte bi loo yoo xamante ni xamuñu ñu ko dugal ndax ci Touba ci kanam lañ ko dugalee ca compte boobu euh, Touba euh, Orange Money moom li ci dugg day def direct ca banque ba te itam foofu amaat na leneen loo xamante ni lu dal suñu xel ndax sëñ Abibullah mi nga xam ne moo jiite liggéey dafa wax ne ak lu mën a soxla ci àdduna pour mu signé moom ab sec mu dem ci liggéey bi day fekk mu rek sec booba jëm ci sànc ndax bërki démb rek am nañ problème bu metti boo xam ne Gàmbi la amee ay liggéey Touba ci kanam def fay liggéey ñu invité waa Touba ci kanam ñooña di liggéeyal waa Touba ci kanam invité waa Touba ci kanam ñeenti nit ne ñoom ñooy dagal ñaari nit ñaari nit ñi biyee ñaari ñi des na ko Touba ci kanam dagal biyee du signé boobu sec ñu koy wàññi di ko wàññi ba ci 40000 kenn ku ne 40000 dana moom du ko signé ndax daal liggéeyu Serigne Touba 1000 francs yi nga xam ne produit yi dañ koo génne ngir jëlee ko ci sànce yi lépp luñ fu luñ fay génnee nañ ko jëlee ci sànce waaye tu euh, 1000 euh, francs yu jógee ba Gambie wala jógee Mali wala jógee Abidjan wala jógee feneen ñëw ba Touba bëgg a delluwaat Gambie Mali loolu man du ma ko signé. kon li may def mooy nañ jaayante lamb poosam génn teg nit ñi ñu lamb suñ poos génn teg ba ñooñu am paas buñ def. kon foofu la Touba ca kanam toll signature moom lenn lu koy génne xaalis moom lenn lu koy génne lu sànc amul loolu nag lii daal laa yaakaar ne moom moom laa moom nga ma doon laaj ci lu ma mën a leeral boo amee leneen loo xam ne nag kii nga ko ñu continuer ci waaw kon ba tey rek eh, ñuy dellu si waat di sàkku rek maam jëmm ji nga xam ne moom lañ toogal muy Serigne Modou Seck nga xam ne liggéeyul liggéeyul Serigne Touba moo ko yëkkati ah, moo tax muy dem bitim réew ak li ko wër ñuy sàkku rek ñaata réew nga demagum yoo xam ne Touba ca kanam moo la fa yóbbu. waaw li nga xay na bëreewul ndax euh, ñu ngi ñu ngi ñu ngi film bi nii may wax ak yow États-Unis la ñuy dem Brésil Argentine gii ak euh, am na beneen dëkk boo xam ne ni euh, daaw bi ñu ñëwee fii dem naa ci ay ay raison fii ci réew mi yu sori yoo xamante ni sëñ Yankoba moomu ko moom moo joxoon tur ya ma dem fa. Brésil tamit bu ma fa demee noonu laa koy defee am na it beneen réew tey jii ba wax ak ñun muy Urugu Urugu la. Uruguay Uruguay. Uruguay waaw. <laughs> waaw contact naa leen ba fi mu ni fas naa yéene naa fa dem taxawal fa Touba ci kanam. waaye nag Touba ci kanam dem gi baax na lool waaye yë jëf yéene moo ci te dafa am doomu aadama yoo xamante nii bu liggéeyal Sëriñ Tuubaa jógee ñu gëstu ko ba gis ca lu leen doy ñoom fa saasa la ñuy jóg nekk ndax jamono yi may wax yow Tuubaa ci kanam am nañ juróom fukki ak nangam àgg nañ ci juróom fukki réew ak nangam juróom fukki réew kanam am na fa weer wu dee ñu dajale lu am yónnee ko Tuubaa yónnee ko Tuubaa ñu def ko ci banque yi loolu daal moom laa am ci loo xamante ni wut ci ndax lu jiitu Touba ca kanam daa nga génn di dem bitim réew wala tuubaa ca kanam moo la njëkk a génne nga dem bitim réew maanaam Touba ca kanam génnewuma ndax man dafa am lu ma damay jóg ngir sama yittee bopp mhm. waaye bi nga xamee ne Touba ca kanam am na ak léegi bu fekkee ne sama yittee day day daa doonoon benn léegi damaa def sama yitte muy ñaar su ko defee fépp foo xam ne waroon naa fa am benn fan dama fay am ñaari fan ngir liggéeyal Touba ci kanam def naa ko ca New York États-Unis bu ma demee moom laa ko fay defe su ma ci ay dëkk yu fasantu ko su ma fa jógee Brésil googu noonu laa ko fay defee fii noonu laa ko fay defee ak feneen ku ma demit noonu laa ko fay defee maanaam Touba ci kanam këtiw ma damaa jur ngir sama yittey bopp waaye nag sama yittey bopp yooyu daa doonoon benn léegi mu doon ñaar fu ma am benn bis léegi ñaar laa fay am ngir Touba ci kanam ndax Touba ca kanam it dafa doon loo xamante ni liggéey jaayante la ndax amagul kuñ daggal billet yaakaar naa boo xamante ni Touba ca kanam a jël billet ba daggal la ko kon ñun liñ ciy def yàlla jëmm yàlla ak jëmm Serigne Touba ak xam liggéeyal Serigne Touba li ci nekk amuñu loola mooy moo sabab ba ñu cee ñàkk suñu dara muy suñu doole ak suñu alal naa ni ma la ko waxee ci njëlbeen bi rek fas Touba daal képp koo xam da nga faa dem am fa kër booy defar sàkket la bu dee sàkket na war ngaa fonk sàkket wa te xam ne sëñ ci kër ci kër sëñ Tuubaa nga nekk dafa defaru sàkket kon fonkal sàkket wa waaye nag booy wax na nga xam ne kër sëñ Tuubaa nga nekk da ngaa da ngay wax seetal la wax lan la boo xoolal la ngay jëf ndax ci kër kër sëñ Tuubaa nga nekk te booy jëf da war a xool la ngay jëf boo dee tabax nag fonkal tabax bi te xam ne kër sëñ Tuubaa ngay tabaxa ci kër sëñ Tuubaa ngay tabax te kër jàmbur ku fay def da ngay fonk liggéey ba ndax kër sëñ Tuubaa ku fay liggéey war ngaa fonk liggéey ba te xam ne loo fa def sëñ Tuubaa lay fekk ndax kër jàmbur kër ga muy kër sëñ Tuubaa jërëjëf sëñ Mor Seck ndeysaan da nga yëkkati kàddu gu am solo goo xam ne dafa daw yaram lool mu mel nii yéen ñi sekk Touba ca kanam képp kuy génn di dem bitim réew du tubaa ca kanam moo lay daggal bee déedéet yóbbu bu ma ko Touba ca kanam daggal bee ndax sëñ Abou Bousso daaw wër na Afrique gépp jóge fa dem Europe wër ko wër na Afrique dëkk yu bari bokk jóge fa dem Europe dem dem Italie doog a ñibbi senegal te dëggaluñ ko biir noona lay def keneen noonu lay def kon Touba ca kanam moom jógu pareegul ngir daggal kenn biyeegul waxuñu ne nag du nekk ndax liggéey itam bu buñ demee ba mu am man ko attan ko dañ ko ko teg ndax tey bu fekkoon ne Touba ca kanam mën naa jël juróomi nit yoo xam ne ay kilifa la ñuy doon ñu ma gën a doon kilifa ndax ñun ay donga rek lañ waaye nag bu ñu mënoon a jël ay kilifa yoo xam ne damay kër sëñ Abdou ak ñeneen ak ñeneen abibu ak ñeneen ak xam nga boobaa lay gën a ëpp lay ëpp dara fa dem ci beneen dëkk dem ci beneen dëkk loola liggéey la xamante ni massification la boo xamante ni soxla nañ ko te ñu koy séntu ci kanam te yaakaar nañ daañ fa àgg waaye nag àgguñ ndax fi mu ne nii may wax ak yow 400 millions yooyu nga xam ne moom lañ am dañ ne siiwoo jox ci ay nit ñu naan ne siiwoo jox ci nit ñu faju na siiwa jox ci nit leneen ak leneen ak leneen li nga ne la nga ne kana siiwa lekk nag du jël di ko def ci ay ay billet te oto mbalit yoo xamante ni nii Touba kanam lañ ko jëndal oto yi mbalit yooyu ña nga Touba àgg nañ agsi nañ ñu war koo ñu war di roñ mbalitum dëkk këruk Serigne Touba googu ma la waxoon léegi tasaare ko ci dëkk ba ndax comité rural ba wala mairie ba lu toll ci ñaari oto lañ am yooyu mbatit kon néew nañ doole ci dëkk ba dëkk bu ñu naan ñaari juróomi ñaari million kon doole nañ ci juróom ñun waa Touba ca kanam doole nañ ci juróomi oto yu mbalit fas nañ yéene jox nañ ko itam loola it ni ma la ko waxee léegi ci li ñuy def dañuy dañuy fekk kasin bi jox loola ñu ànd ci ak moom te oto yu mbalit yooyu waxtaan nañoo waxtaan nañoo maire ba maire ba ba mu jubóon ci ànd ak ànd ak ñun liggéey ca oto ya kon liggéeyal Touba ca kanam ñun ni ñu koy defee mooy daal lépp loo xam ne yëkkati nañ ko ànd ko ña ko sëñ bi jox ñu liggéey juróomi oto yi mbalit a fa ak benn oto boo xam ne day oto yi nettoyé yii yi mhm. am nañ ci benn boo xam ne nii dana ñëw moom ci fan yi pour nettoyé di nettoyé ji kon foofu lañ toll ci rek li ngeen taxawaayu état la woon ñu xoolee tey Touba mooy deuxième capitale parce que mënee wax sax mooy dëkk bi nga xam ne moom ëpp aw nañ ci àddina loolu lépp doon taxawaayu état tey li xamuñu sax ndax waa waa état yëg nañ ñun la defam déet ndax ñun daal dañoo liggéeyal ci état ndax dafa am kon ni ma la ko waxee ndax jamono yi nga xamante ni nii sëriñ Modou sëriñ Touba ngi fi woon bëgg jumaay Touba booba waxul woon état dara dafa taalibe yi la waxaloon kon sëriñ Touba jàngal nañu ku soxlaa def Touba dara nan ngay def mooy laaj taalibe yi bañ fi sëñ Touba jógee sëñ ba indi raay bi Touba taalibe yi la woowoon te ngi foon xamoon nañ soxla nañ ko waaye ko taalibe yi lañ woo taalibe koy def ñu def ko jumaay Touba ji biñ koy tabax ca sëñ Modou Moustapha ba ci sëñ Fallou ba ci sëñ Abdou Lat ci nekk état ngi fi nga xam ne danaan sax dama ne ñu ne xaa sëñ bi bu nee dama ñu ne xaa la booba ña nga fa te téewul ba ñuy liggéey Touba ba ñu koy defar lu ñu fay defar woowuñu woon état ñun dañoo sëñ sëñ Touba ka fi nekkaloon sëñ Touba ca yooyu jamono taalibe yi la woon loolee nag moom lañ gën ni ma la ko waxee dañoo bëgg indépendance te indépendance mooy gën sa bopp gëm sa bopp nag ku ko def da ngay nangoo defal sa bopp lii moo sabab Touba ci kanam lépp loo xamante ni état war na ko ak lu wóorul état ñun xamuñu ko sax xamuñu lan la war a état war a def ak lu état war a def ñun daal li xam ak li ñuy wut ak li ñu bëgg a xam ak li ñu yéenee def mooy defar suñu dëkk defar liggéeyal Sëriñ Tuubaa ci dëkkam bii nga xam ne amul woon lu dul moom këram bii nga xam ne nii lu mas ñaan loola la ko bëgg fu mu mas a dëkk foofaa ko ko gënal dëkk fa am ca loo xamante ni moom ëmmu ko ca woon ndax Sëriñ Tuubaa juróom benni weer la mas a dëkk ci Tuubaa juróom benn weer te lu mas a wax Tuubaa lay wax sama dëkk fu mu mas a nekk ci adduna gan la fa lu mas a lu fu mu mas a fanaan bu sañoon guddi ga du àgg Tuubaa la koy àggale ji ñun ñu am wërsëgu am sensu dëkk fa juddoo fa dëkk fa màgg fa buñ fa taalibe yëpp seen yéene ak seen bëgg mooy Tuubaa di fa dem at mu jot kon ñun am nañ loo xamante nii la Sëñ Tuubaa bëggoon muy dëkk Tuubaa ñun noo ko am la sëñ Tuubaa bëggoon muy muy muy féete Tuubaa noo ko man jamono bu bëggee dem Tuubaa bëgg dem Tuubaa moom bëggoon na di dem Tuubaa dem Tuubaa jamono bu ne diir ba nekkee njëriñam bu sañoon wala bis bu set wala ñetti fan yu ne mu dem Tuubaa mais muy ko ko woon ñun nag yàlla may nañu ci barkeb sëriñ Tuubaa saa bu ñu bëggee dem dem Tuubaa dem Tuubaa am fay kër dëkk fa ni mu fa mu ko neexee saa bu ñu bëggee dem kon loola yàlla defal nañu tawfeex tawfeex boobu ñu yàlla defal na lëggal mooy ñu xam ko te jàpp ko te topp ko te xam ne loola mooy suñu njëriñ adduna mooy suñu njëriñ àllaaxira ndax lii kat bu ñu ko toppee noonu rek lay demee kon ñu ngi jégguluwaat bu baax a baax jërëjëf moo Modou Seck xam naa waxtu wi mi ngi ñuy xooj kon bu ko defee rek ñu jox la nga tàggatoo ko mbokki adduna bi mbokki Touba Argentine ana lan nga leen di wax ci ñi nga xam ne tàbbeegun ci Touba ca kanam waaw fi may tàmbalee bu ma dee bu ma doon sant dinaa ne naa sant mboolem koo xamante ni yaa ngi jëwriñ yi nga xam ne ñoo nekk ci Touba ci kanam ci réew yi su ma dama fàtte sax ne kon damay jël liste ba tudd seen i ndax yéene naa leen ko te itam jaadu woon na kenn ku ne ñu tudd sa tur ba nga xam ne yëg nañ la ngay defal Touba ca kanam muy Italie muy France muy Espagne muy Afrique fu nekk Europe Italie Amérique fii ak Brésil kenn ku ci nekk fa nga nekk ña nga cay def seen kéemtu lay kartan xanaa kay taalibe ya nga xam ne ñoo fa ajuwaat ñu soññaat leen ngir bëgg ñu gën a taxawaat te xam ne ku dugg ku duggul woon duggal ku doon dégg te te xamoo gëstul ndax Tuubaa ca kanam moom gëstu ko yomb na ca itam mbir la moo xam ne ni suñ njëriñ la ñun yëpp ndax ni ma ko waxee rek la kon daal nañ jugaat bu baax a baax te fas yéene liggéeyal sëriñ Tuubaa te xam ne liggéey la boo xam ne sëriñ Tuubaa nangu na ko ndax xalifa général de Mouride sëñ Sidi Muxtaar sëñ sëñ Sidi Muxtaar na yàlla yokk leeram moo nu ca joxoon ndigal sëñ Muntaxaa joxaat nu ca ndigal yeesal ko bañ fa demee dëkk démb mu ne mboolem ko fi ñëw mboolem liggéey bu ñu fa indi seen bi laa ci ëpp yaakaar sëñ Muntaxaa nu ko wax dëkk mu yónnee cent vingt mille yónnee na ko daan ne lu ngeen nekk de maa nga ci kon ku mel noonu bu fekkee ne nii la de te it mun Muntaxa daa tegu ci yoon boo amee kilifa nit bu tegu ci yoon di daw nga naaw ngay daagu dala fay wàcc saxaar nga départ nañ daw ne moom liggéey sëñ Tuubaa dong ko ñor bëgg sëñ Tuubaa dong ko ñor yaakaar ko dong la def te jàpp ne léppam sëñ Tuubaa la moom la gëm moom lay liggéey moom lay xëyee moom lay nooyee saa boo ko séenee muy dox ci loolu lay dox kon ñun taalibe yi war nañoo takkaat suñu liggéey te jógaat xam ne bu ñu yeexee sëñ bi dem ban nañ jógaat laka laxaas suñu suñu suñu suñu takkaat suñu tubéy te xam ne sëñ baa ngay dem nañ gaaw lii daal laa amoon ci lu may lu may sama kàddu yi mu mujj te di sant nag yéen ñaar yëpp muy muy góor ak yow Assane Baye Fall maa ngi ñu ngi lay sant te di la gërëm di leen ñaanal yàlla sàmm leen te taxaw leen te liggéey bii nga xam ne da ngeen koy liggéey yàlla na ngeen ci am lu kawe seen jot loo xamante ne nii foogu leen ko woon yàlla na ngeen dem ba muy ay télévision ci barke Serigne Touba te ngeen xam ne léegi Serigne Touba am na lépp mën na lépp lii ngeen di def bu ngeen ko xeeb wallahi alasim bu ngeen ko toppee fii sax mën ngeen fi am télévision rawatina feneen kon na ngeen xam ne liggéey Serigne Touba dong am njëriñ te liggéey bii ci am ndam yàlla na leen ko yàlla may te may ni ko te may ni koor jàmm Ah, nangal ñu suñu liggéey ci barke Sëriñ Tuubaa jërë ngeen jëf sant naa leen gërëm leen jërëjëf Serigne Modou Seck amin yaa rabbal alamin ñaan gi nga xam ne ñaanal nga ko tubaa Argentine TV gëm nañ ne suñu borom dana ko nangu kon nag mbokk yi du ñu def lu dul di leen jaajëfal lii lañ leen fi indiloon muy lu jëm ci Touba ca kanam ah, mu mel ni murit yëpp nañ ci jàpp rek te xam ne ku jëfatul ngir yàlla ak rasuulu doo ci am yoon te jëf ci dana suulu te sëñ Tuubaa day teyam june day gàcceel démbam Touba dana dem ba mag ñi nga xam ne ñoo doon jóge ca carrière ba di root di indi ci biir jumaay Touba ji tey ci ne woon pëkk pëkk ne ko fii mooy jumaay Touba ji mun na am du ko xàmmee kon nag mbokki julliti mbokki taalibe du ñu def lu dul di leen wax asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu jalilaayi maskani Touba